waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. Ah, gën jox kàddu gi sëñ Bass Khadim Awa Ba ñu fàttali rek ne euh, monsieur Sékou Dramé di DG wu euh, Sonatel ñëw na fi indi fi ay ndimbal yu ama am solo ci ay nag ak ceeb ak yeneeni teraanga euh, kon ñu jox kàddu gi sëñ Bass Khadim Awa Ba ci lu ay minutes yu limitu rek. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ fàllu jërëjëf loo li nga wax ci sëriñ maxtaar dëgg la sëriñ Modou Moustapha premier xalifa général de Mouride 1945 bi mu tawatee sëriñ Basiiru woo ay médecins yu ko xool biñ ko xoolee dañ ni ko kii dara jotu ko lu dul manqué nelaw biñ ñëwee mu ni leen lu docteur bi wax ñu ne ko nee da nga manqué nelaw mu ni leen 1927 ak léegi fàttaliku ma fi ma fi nelawee loolu moo dal sëñ Maxtaar mii ndax masuul day ñime masuuliya sëriñ Maxtaar naar loo ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko di sant Serigne Fallou kàddu yi rafet na yow bëggoo dara soxlawoo dara sa yitte du dara lu dul daara ji man nag damay wax ni man nu ma mel sëriñ Mout Saxir loo la nu ma mel sëriñ Mout Saxir loo la bu ma demee tey ba bu ma waxee nit ñi man maa déglu. wala di bàyyi xel samay kàddu jëmmi sëñ Mat Saxir loola kon yàlla nañ ko yàlla fayal di nuyu monsieur madame la ministre soxna Fatou Diané kàddu yi rafet na li Cheikh Anta Samb wax dëgg la yow doomu daara nga te sa yéena ci kokki xam naa ko sa pas-pas ci daara xam naa ko waaye sa yéene ci daar yi ci réew mépp xam naa ko yàlla na yàlla jàppale di nuyu madame gouverneur di ko ñaanal yàlla mu sàmm ko yàlla jàppale ko ak délégation bépp di nuyu chef de village su Kokki muy Serigne Cheikh Lo di ko sant ci taxawaayam di nuyu Sele May sa Njaay di ko gërëm waaye di sant Serigne Mourtala Lo mi ngi nii ñëw na ànd ak suñu mbokki mu ba yi te sama diggante ak waa Kokki tax mu déplacé wu. waaye di sant ak gërëm alaaji as ndaw as yow xam naa daa deux minutes rek nga yëg fii ma jox la sa ay quelques yóbbante yu jëm ci yow bi nuyu sëriñ Ahmad Moustapha Abdou Aziz wax na ma ne ma am na yéene pour dimbali daaray Koki di nuyu samay wóllëre samay xaritu bopp muy sëriñ Abdoulaye Dia ak sëriñ Moustapha Ndiaye ak ku ñuy wax Tahiru Sarr di nuyu Cheikhou Dramé directeur général Sonatel ñëw na fi am na yéene ak taxawaay ak bëgg jàppale waa Koki man nag samay kàddu du ci bari ndax ñun ay taalibe Serigne Touba lañ te am nañ sëriñ tubaa nim meloon ci alxuraan ba tax mu wax ni xallib fuaadi ila alquraani yaa maliki walil xadiisi bi irsaadin wa taqyidi dellu wax ni man zar man sarrahu alfawsu fi daarayni duuna ana fala yufaariq kitaaba nuuruhu alana ñun moom lu dul alxuraan ñoruñu lu dul daaray kokki ñoruñu la sëñ Mor Saxir loo waxoon Baye Fall wax na ko léegi mooy dëgg sëriñ Mor Saxir yitteem nekkul woon dimbali daaray kokki waaye bëgg-bëggam ay yéeneem moo doon ku nekk ci daara ji jàng mu lay fay di fay sa ndey di fay sa baay jàngal alxuraan bu ngeen tàqali ko bu ngeen gisante waatee na doon bis kon loolu moo doon yéene sëñ ma taxet waaye may beral cant ak nuyoo fàllu galas loo di buur daal yi di jàmbaar tax na ñun ñi jaar ci daara doon ay doom way daara bu njëkk bu ñu daan wax yalwaan dañ daan am complexe waaye fàllu tax na amatuñ complexe boobu kon fàllu yàlla na ko yàlla defal jàmm di sant as di ko gërëm as nag ma yor fi ay yóbbante yoo xam ni ci yow la jëm si ñuy waajal sam as li benn seg la sama benn xarit wëllëre Mamadou Racine si moo la ko jox lii sama benn wëllëre sama rakk ñu koy wax El Hadj Souley moo la ko jox lii sama benn wëllëre ñu koy wax docteur Khadim Ngom cardiologue nekk ca Bordeaux di taalibe Cheikh Béthio moom la sëñ Mountakha dénk mise bii ñu war tabax ci Touba. nga xam ne jeexintalu Serigne Touba lañ fa war a dugal moo la ko jox bi ku ñuy wax nabu si di seeru Mamadou Racine si moo la ko jox am na yeneen ñaar ñu ma woo léegi kenn ku ci jox na la un million boo boolee lii mu nekk cinq millions nii laa ko tàmbale woon daaw bëgg it incha allah rabbi mm-hmm. ñu dem ci samedi bi jës deuxième su deuxième samedi bi jëm ci weeru koor bi njëkk ci koor gi yow nag dañ lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yow da ngay ñuy motiver ñun dong daara yi ñun ñi génne kokki li ñu kokki defal su suñuy ndey defaluñ ko suñuy baay defaluñ ko ndax kokki moo def ci ñun alxuraan madame la ministre soxna Fatou Diané jëf yal na la yàlla defal jàmm di nuyu président de la république di ko ñaanal yàlla mu jàppale ko di ñaanal Amadou Ba yàlla defal ko jàmm di nuyu Babacar Samb mi yor ansas bi yor wàllu daara yi ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye di sant délégation bi ma àndal jóge Touba Serigne sa Boussa Dendey Serigne Mame du mbay as jërëjëf suñu xol seet na yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla taxaw ñun amuñu lu dul kokki bëgguñu lu dul kokki lu kokki safuñu ku nuy bëgg bëgg ñoo kokki ku nuy jàpp jàpp ñoo sëñ Mataxir Lo ku nuy bàyyi bàyyi ñoo sëñ Mataxir Lo wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. muy tawfeex